Ah, ñoo lay fay bu baax di la nuyu di la euh, sargal di la wax soyee le bienvenu ci kudi ngi jan li may euh, woot dinaa si mën a wax parce que man kuli ngi jan 1969 la commencé football kuli ba 1990 mais je crois que ni kuli di équipe bu mag formé depuis 1964 ma commencé ci football depuis 1969 la ci commencé football man mi waxtan ak yow man ma ndek jangi football ci tiawon ma ndek jangi football ci tiawon tene bi ñuy footballé ma ci ndek duggal bi ci tiawon ma ci ndek duggal bi ci tiawon mu nek match bo xamanteni bi digante jappo ak ko li nga jand diggante jàppoo ak Koury Ngidiane euh, Tivaouane la. waaw papa ci loolu nag lañu la bëggoon laaj ci match bi nga xamante ni moo am tey muy quart de finale en général ñuy dégg ñu koy woowee match derby su fekkente dafa am ci diggante jàppo ak Koury Ngidiane loolu lañ bëggoon nga wax ñu ci sa xalaat lan mooy sa xalaat ci match tey bi ak préparatif yi nan la demee et tout. waaw xam nga dañuy wax match derby d'accord match derby la parce que euh, euh, équipe bi bii day bii day préparé équipe ba lay mais football mooy gagné. ah moi je crois que je, je crois que ni euh, euh, man je supporte l'ASC Kouly man supporté wu ma jàppoo mais je supporte l'ASC Kouly man Kouly ngi jaan laa defee sama lépp Kouly ngi daan ci laa ci lañ ma xamee Kouly waaw mais tey dinaa la xamal leen ce soir ce sera un match boo xamante ni bi match bu métti métti métti métti lay doon mais bu ko kul booyu kul yu yenu nañu ñëw jaar ci kaw jàppoo gagné ko et ko largement parce que gëm-gëm la gëm-gëm la gëm-gëm la ah, ay kuli jàppoo yooyu man man man nekkul ci man quoi parce que man bi ma daan football yooyu nekkul woon ci man moom laay wax booy toujours ni leen am ah, match ah, match de football la boo xam bu leen ko yoonu jàppoo tamit am nañ équipe ñoom dañuy wax dañuy ñëw gàññe sukuli dañuy wax ñun dañuy ñëw gàññe si leen léegi na ko booy ñafe problème de quartier la les gosses là ñoo ngi am tout un quartier derrière euh, euh, ñoom quartier bi yëpp xale yaa ngi nii gis nga ko man bu ñu daan football dañuy footballé ngir xale yi ñoom nañu footballé ngir xale yi muyee la mayo s'il faut mourir sax il def ko pour gagner ay say jàppoo man man loolu laa tu su kii laa xam quoi. ba tey ñu ngi ci biir nawetaan yi tey ku li war a jàmmarloo équipe bi nga xamante ne moo di jàppoo mu nekk en général ñu koy tuddee match bi nga xamante ne mooy match derby tey ñu taxaw ak ñu benn confrère boo xam ne ñu koy woowee ki Gueye nekk un ancien joueur de Kouly Kifa ñu ngi lay nuyu bu baax waa TIV ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. maa ngi fay bu baax leen ziar info sis seen defar kontaan naa trop ci yow di leen dalal jàmm ci koñ bi. bon comme ni ko ñëpp xamee ah Kuli ak Jàppo deux grandes équipes euh, ci département bi comme euh, ci région de Thiès. vraiment on, on va jouer un match très euh, match bu neex la na la jouer tey incha allah bon dina am parce que ñaari équipe yoo xam ni bon daaw daje nan te jàpp dafa gëj a gagné Koulibaly ça fait une dizaine d' années ëpp na ko sax gëj na gagné Koulibaly te boobu ba léegi aussi Koulibaly moo nekk ci kawam te incha allah dañ koy ñaan à chaque fois muy continuer parce que un match derby dañ koy jouer pur gagner ko certes bon c' est deux grandes équipes ce sera pas facile nag du tout ce ne sera pas facile parce que Koulidia, à chaque fois que nous jouons, du yombo. Maintenant, on fera le maximum avec la préparation qu'on a faite. Vraiment, les euh, gosses, ils sont au parfum. Nous vraiment un match importance dans le jouer aujourd'hui. Préparer comme euh, joueurs préparer les dirigeants aussi idem def nañ préparation baax macha allah xanaa kay di taal suñu loxo suñu borom di ñaan yàlla rek yàlla may nu ndam ci match tay bi te incha allah am nañ ci yaakaar te dina am ci barke yonent bi. moo ko déggandoo kon ni nga xamante noonu la ko ki fa waxee ñu ngi ñaan yàlla jàmm am.

derby nag la ñuy joué parce que un match derby moom vraiment doo wax ay score fleuve te ñun yaakaar na ak suñu préparation ak détermination bi am bon on va battre jàpp incha par deux buts à zéro am nañ ci yaakaar baax a baax a baax a baax a baax yal na nu yàlla mbay nañ koy jàpp te nañ ko gagne incha allah de moom derby la moom wax dëgg yàlla ku li jàppoo moom ku ko ko. ku jàppoo moom ku ko xamul dégg nga ko li ñuy ñaan daal mooy yàlla may ñu ndam nu sedd guy ci kaw jàppoo deux heures yu leer naañ naañ naañ ci barke Serigne Babacar ci barke àjjuma ji loolu rek la ñuy ñaan. max ku jàppoo daal maa ngi ko gisee alhamdulilahi rabbil alamin yal waa kuli dóor 4-0 seen góol gi maa ngi ñaan yal na bu bal dugg seen camp bi man nag nday astulaa tudd dëkk njega ñaaw séeréer laa rek nag waaw maa ngi ñaan nag lu ma mënti ñaan nag maa ngi ñaan bu baax a baax a baax ci suba ba tey nag maa ngi servi di defar ba mu baax maa ngi ñaan moom tabaarakàlla macha allah yàlla def ci ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. suñu mbokki internet tey dañu ñëwoon fii ci équipe bi nga xamante ne moo di jàppoo tey ñu am war a am match ak équipe ne moo di Kuli en général match yooyu bu fekkente ne daan am dañ ko daan tuddee match derby léegi tey ñi ngi fii tey ci jàppoo bëggoon leen laaj lan mooy seen lan lañ gis ci match bi nga xamante ne moo nar a amee tey ak seen préparatif yooyu nan lay demee asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu sama grand. maaleykum salaam. maa ngi am jàmm bu baax a baax. Mhm. di leen nuyu bu baax yéen waa TIV info. Mhm. di leen wax nii ñun pare nañ si lëpp mhm. pare nañ si football. pare nañ ci supporter gaa yaa ngi nii taxaw. tey stade bi di ngeen gis beneen. jàppoo duma ni sax jàppoo mais beneen jàppoo ngeen gis beneen jàppoo bu mel ni dafa judduwaat tey dinañ ko gis tey si incha allah si stade te dañuy gañe dañuy indi ndam li fii incha allah si kàttanu yàlla bu si yàlla àndi dinañ gañe gañe bu set wicc xulawuñu xeexuñu ñun dañuy fair mais dañuy gañe ndam li dañ koy indi fii incha biir jàppoo gaa yaa ngi nii waaw léegi ñu gisaat suñu neen confrères yoo xamante ne mën na leen a laaj comme par exemple yow ñu ngi lay nuyu bu baax waa TIV ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi a baax di leen nuyu ñëpp. di leen félicité di leen wax tamit seen liggéey nice na xam nga lu toll ni Tivaouane suñu niveau nawetaan ñëpp xam ne nu mu fa demee mais yéen a ngi si jàpp di ko améliorer di ko dugal si réseaux sociaux yi xam nga di ko di ko defar daal muy nice daal. waaw waaw tey match bi nga xamante ne moo di jàppoo ak Kuli tey dañu bëggoon yow nga jox ñu sa score. man sama score 2 bi 2-0 laa gis man. Ah waaw 2 ah, amul ragal amul ragal 2-0 rek. ñëwoon pour laaj leen lan mooy seen xalaat ak lan mooy seen gis-gis ci équipe bi nga xamante ni mooy jàppoo nar a def quart de finale am tey ak équipe bi nga xamante ni moo di Kuli. waaw tey ASC jàppoo moo xewle ak l'ASC Kuli ñu war a def quart de finale boo xamante ni mucc ayib la tey ambition bi dox na loo xamante ni maa day taali mm-hmm. euh, képp. lii tey match bi tey wane na benn firne boo xam te ni képp ku nekk Dakar wala foo mënti nekk muy Saint-Louis muy Tamba dagg nga paas ngir ñëw fekk si marché bi ndax match bi dafa am ampleur. Mhm. ampleur bi am mooy ñaari équipe yi ay ñaari équipe yu mag lan mhm. nekk ay ndaanaan yàlla def daaw ñu fubal mu gañe ma mhm. ren tamit ñu mobiliser waat te xam ne ku wax nawetaan xam nawetaan foom gàcce la mais lépp ñun tamit ñu taxawaay suñu koñ taxaw ci anam bu rafet tàggat joueurs yi ba joueurs nekk ci état bu baax tàggat supporters yi ba supporters yi nekk ci état bu baax kon li ci des mooy dañuy ñaan yàlla rek yàlla moo des mais li war ci match bi yëpp def nañ ko ndam moo des dañuy tàll la yàlla sunu loxo ñaan ko te am nañ yaakaar dinañu may ndam li bu baax a baax a baax a baax ndax mérito nañ ko. te incha allah rabbi ndam dina ñëw fii bu soobee yàlla. ñu ñaan yàlla li nga xamante ne moom mooy fair play fair play bi ñuy ñaan euh, demewul nen lu dul ndam li ku mën ci gagné ci ñaari équipe bi ndam lu génnul bi nga xamante ne mooy biir Tivaouane kon ñuy ñaan fair play bu baax a baax waaw grand nga ni waaw mais nag li tax fii nii xumbul tey xam nga fii heure bii bu kuli musaana fubal jàppoo ak match bu ñu musa am sax dina fekk fii nii xumb mais tey dañoo yeewu incha allah ñu fekk fee benn ndogal boo xam ne ndogalu yàlla la quoi muy benn dëj bi fi am loolu rek a tax gars yi yëngaluñu moo tax instant yi koñ bi xaw a sedd nii rek ñu bëgg rek lépp lu ñuy def incha allah si wàllum spectacle wàllum gaa yëpp taxaw lu rafet lépp dinañ ko gis incha tey sa tribune bi sa tribune ba incha sa stade ba fii moom duñ fi def dara fii ñaan rek nañuy saako ñaan dem jëli ndam li indi ko ndànk-ndànk tekki-tekk amuñ dara lu ñuy yëngal incha allah. waaw ñi ngi rafetlu li nga xamante ne loolu la wax ak seen dévouement dévouement mënul weesu ngeen am nit bu wàññeeku ngeen doo leen annulé match bi da koy continuer jouer ko dem si ak rigueur dem si ak force dem si ak li nga xamante ne mooy fulla ak fayda surtout ak fair play ñi ngi am contentement bu baax a baax a baax jàppoo ñëwoon ci jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk fii ci jàppo nee nañ li tax yëngaluñu nag dañu am décès loolu moo tax te loolu dévouement rek moo ko waral ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa TIV info ñoo ñëwoon fii tey ci jàppo ci nawetaan yi nga xamante ne moom lañ am Tivaouane